والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yi cant ak i ngërëm jëmee ko ci sëriñ Abdou Samad Mbàkkeem sëriñ Sohaybu daanaka kàddu cant rek la doon ndax li ci waroon a jëm ci kàddu yu soññe ak fàttali sëriñ Ahmadou Mbacke wax na ko di setu borom Darou Mouhty kon bu ñëwee ci biir kër Sëriñ Tuubaa di waxtaan loolu lu bari lay jàngale kàddu yi mattale na sëkk ndax dëppoo naa xam-xam waaye dëppoon nag taalibe akuk bi mooy li nga xam ne maam jënoon la meloon kon sëriñ bi dañ lay nuyuwaat bu baax santaat la gërëm la ci xalaat yu rëy yi nga xam ne amaat nga ko ren te waxtu nekk nga di koom ndax saa su xëyee li gën a nekk sa yitte rek mooy lu sagal yoon wi lu wane mbirum Serigne Touba ak lu ko ñoŋal lii nag ci biir loolu rek la tàbbi ndax guddi gi ñuy waajal di guddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam gi nga xam ni ko Serigne Touba woon ak ni ko fonke woon lu yàgg ci yow la ndax ba ko dalee fonk yàgg na daanaka da nga koy jugale rek boo gàmm yaatoogul nuyu ci biir dëkk bi waaye naka jëkk guddi gàmm da nga ko fonk maa ngi am na jamono yoo xam daanañ ànd fii dem ba njaarim siyaare ci bis dellusiwaat def nañ ko ay kon am na ci ay jamono it daa nga koy yëkkati ci si biir jàkka di ko dëbbi nit ñi topp sa ginnaaw kon lii dafa li ñuy wax haasihi bi tilka kon lu yàgg la loo xam ne dafa bokk ci sa jéego yi nga daa def ba ren jii nag yàlla def nga ci gën a wanewaat mbirum Serigne Touba ndax Serigne Touba dafa fonkoon gàmmu daa ko def daa ko woote ci njaareem ñëpp ñëw di ko fa fekk si bu weer wi masaan dugg mu di ko waajal ci mbégte ak xar kanam bu tàlli ak di berndeel nit ñi daa ko def ci loxol boppam fonk googu ko fonkoon rek. daa ko dundal te naka jekk nga di ko gën a wane ngir bëgg mu gën a leer ci nit ñi ni ko sëriñ bi fonke woon xam ne moo doon ak guddeem kon lii nga defaat tey day mel ne muqaddamatul am daa boo ko xoolee ay bunt yu bari la bu ci ne wa innaka la ala xuluqin azim sëriñ bi doo koy jël tagg ci rasulullahi sallallahu alayhi wa kon la lépp ngir waajal jëmb ji tedd ja waaye fukki fan ak benn yi nga xam ne moo jiit guddi gàmm bis bu set nga tànn benn tem jëm ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak ni ko Serigne daa tagge ak ni mu daa jullee ci moom nga seet kenn ci waxtaankat yi nga xam ne seen xam-xam bu wóor na ngir ñu indil ko nit ñi ngir ñu mën koo jariñoo kon loolu xalaat yu rëy yu rafet la kon daal dañ lay ñaanal ci barkeb Serigne Touba ndax naka jëkk sa bëgg Serigne ak soobu ci yoonu Serigne Touba yi da nga koo jugaale waaye nag fi mu toll nii moom da ngaa àgg ci Serigne bi ndax gis naa ne maa ngi la koy wax fan yëpp di ko wax foo néewut gis naa ne sa yitte jëpp sa waxtaan yëpp génnu sëñ bi waxtaan wu àdduna sax fonkatoo ko lépp ci sëñ bi rek lay jëm loolu taw tawféex la ndax Serigne Touba moom boo doxee jëm ci moom bu la nongulee rek nga yëg ko kon loolu rek lay firndeel ak nongul la. kon la la Cheikh Mouhamadou Mountakha seeraloon daaw te di la ko waxtu ne waxaat na la ko keroog ci màggal gi bi lay sant ci teraanga yi nga ko doon andil ci berde ci biir màggal gi lépp ba bis ba wax yu rëy yam la ca wax waaye lii ci ëpp solo rek lim naa lépp lu ma dégg ci yow ci lu baax du ma du bett wax na rek fi waxaat la ko waxtu ne mu koy wax foo néewut kon nag dañ dee santaat bu baax di la gërëm xëy na nag maa ci raw ndax mutuma seere ci yow waaye fi may seeree rek. mooy sa positif ak sa taxawaay ci yoon yi ak sa taxawaay ci Serigne Touba waaye waxuma ci sama digg yow sax ndax suñ diggante du luñ mën a wax ci rajo ndax du lis mën a leer la ndax jus un layete jësa jënd jëmb maa ngi fàttaliku bu yàgg ay quatre-vingt-quinze Serigne Bassirou Bousso nijaay Serigne Bousso mi da daa dañu daa tooñ ma ak sëñ bi quatre-vingt-quinze loolu yàgg na ëpp na ñaar fukki at juróom danaa wax ne danaa tooñ sëñ bi naan ko euh, sëñ bas mooy sa sa sulu saani <laughs> kon loolu loolu du tey sulu saani loo ko daa wax kon loolu yàgg na te dara mos coo sopp ko nag parce que euh, ak cofeelam ak jàppam ak taxawaayam dara dara manqué wu ci kon dañ koy bàyyi ak sëñ Tuubaa bi nga xam ne moo ko tax di jëf ak boole gi ñu sëñ Tuubaa boole te muy boole goo xam ne kenn xam ñun ñaar ñëpp kenn xamu ci lu mu doon ci cofeel nga xam ne moom bu gisee ñëpp di gisuma day gisul kenn ma itam noonu laa mel ci moom kon loolu booleeg yàlla la booru Sëriñ Tuubaa kon dañuy ñaanal suñ dañ koy ñaanal rek Sëriñ Tuubaa gën koo dëgëral sàmm ko ba yéeni jure ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal maamam am ko ci yoon wi nga xam ne bu soobee lépp di sago waxtu ne fu mu gisee luy jànqar wala loo xam ne nur na loo xam ne gënul rek doo amati sago mu bàyyi lépp am ca ba loolu jàll mu jàllaat ci leneen loolu itam tawféex la ndax léppam du ko jox sëñ bi kon dañ koy ñaar bu baax liggéey bi itam ñu ànd ko yéen ba gàmmu gi jàmm ñaan ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin day ci tawféex day ci ngërëmu Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. fu ay nekk rek eh, di seetaan man nga tàllal nangu ñaan. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.